Hi, you. Hi, how'd it go? Yeah, it went well. I'm on my way back now, so I'll tell you about it when I get home. Okay. Well, the kids are in bed and dinner's on. James? James? Can you hear me? You don't have to be in a car to cause a crash. Think. James. <laughs> The moment you know they're driving, kill the conversation. This road safety film is presented by Land Rover One with Euromotor Services Gambia Limited. Euromotor Services is an independent Land Rover specialist and parts stockist, and we are the only appointed agent for Bearmarsh UK and the Range Rover Register in West Africa. Please drive carefully. Mind, I just can't seem to find Millionaire! Hello. Hi. Hi, baby boy. Please give a big round of applause. Pick up lessons from a journey. Jumps when they start to follow me. Hammer luck, some days they suck. When you live for the buck, we get for the family. <laughs> Honey, it's all about Munchie Milk cake. I love it so much. Mom, I love game. Please be bringing more. Salt agents, MFH Group, all Sunical outlets, and King Food Banjul. Call us now on 439-4954 or 422-9975. Biscuit, the best biscuit in town. King and di Disney. mooy suma jëkkër moom nag Vega Celestine Pastor rek la taamu suma doom bu jigéen bii nag moom waxu dara lu dul li nga xam ne ni mooy Vega Rotini Pasta suma doom bu góor bi nag moom spaghetti Vega rek moom la bugga moo tax nag su ma munti toll suma biir kër li nga xam ne nii mooy Vega Pasta rek laa faa jëfandikoo xool leen tey déega pasta yi ndax seen kër jàmm rek moo faa nekk ak déega pasta kër gu neex salaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyooti di leen sargal ci programme mi suñu wér-gu-yaram bés bu ay bele nag gisoon ngeen waxtaan yi nga xam ne defoon nañ ko mu aju nag ci mbiri maye deret ak am solo boo xam ne am na ko ci suñu wàlli dunda tey nag ñu fas yéene laal beneen fànn boo xam ne am na solo lool te nag ñu xaw koo tànxamlu ci suñu askan wi moo di mbiri li nga xam ne mooy mbiri feebari xel Eh, loolu moo tax nag tey ma am fi ku ñoo wax Daouda Samba eh, nekk ci Tanka Tanka psychiatric hospital mooy fi nga xam ne foofa la ñoo denc ñi nga xam ne dañ am feebari xel moom it moom mooy président ci mbootaay mi nga xam ne eh, moo di association for the mentally disabled Eh, muy mbootaay bi nga xam ne ñooy yëngu ci lépp loo xam ne moo di eete ci mbiri boroom feebar xel yi ma am fii tamit Lamin Diba moom mooy secrétaire général bi ci mbootaay boobu ñu fas yéene waxtaanee nag li nga xam ne moo di mbiri eh, feebari xel eh, ma tàmbalee ko nag ci Daawda suñ ne mbiri feebari xel Daawda lan mooy feebari xel anti ay da jërëjëf ci nooñu invité ci programme bi dinaa njëkk indi askan gi nuyoo jóge ci ñoo xam ne dañ am feebari xel wala dañ tële ci xel wala xelaat mhm. euh, kontaan nañ ci li torop foofu lañ jógee buñ leen waxee na ñu ngee dem ci programme yi suñu wérgu yaram mhm. ñu ne dëgg la waxtu jot na pour ñu ni tamit ñu am koo xam ne dina wax suñu ay mbir ci télé mhm. feebari xel dafa xam dafa doon loo xam ne dafa xóot te dafa yaatu te ba léegi xamuñ ci lu bari waaye ni ñu ko mën a tënkee rek mooy feebari xel dafa doon loo xam ne sibiru la mm. doo ko gis waaye da nga koy fiil ci sa biir yaram koy yëg da koy yëg sa biir yaram mm. te lu mooy affect mooy sa mun-mun sa xam-xam ak nooy jëfandikoo ci biir askan bi mm. feebari xel ñette yi la dee gaaw a amee sa mun-mun sa gis-gis ak nooy jëfoo ci biir askan bi ci yi ngay tële te soo ko seetee day dem ba jamono boo xam ne ñun yëpp benn bés wala beneen dinañ am loo xam ne dañooy télé ba dinañ waxtu yenn saa suñ biir office yi mhm. moo tax sa gëm nañ ne mhm. ñun yëpp suñ dund bi balaa ñoo dem ba astafurla ba yàlla di ñu fi jëlee mhm. dina am waxtu boo xam ne dinañ am lu tudda feebari xel yenn saa dina gaaw dinañ ko fajal suñ boppa duñ soxla dem lopitaan waaye feebari xel dafa doon loo xam ne mun naa dal ku nekk te day dal ku nekk ci àdduna lii mooy feebari xel la Euh, loolu am na solo ma ñëw ci Lamine mm. euh, xam nga feebar boo gis rek am na màndarga euh, léegi nag su fekkee ne comme ni nga xam ne noonu la ko daaw da waxee Eh, su fekkee ne nit ki am na feebari xel eh, yan màndarga yan misaal laa joxe ñu mun a xam ne kii day dafa am lu manqué si moom waaw um, ah, jërëjëf Anti Aida comme ni ko daw da waxee moom tënk na na si lu am solo mhm. comme màndarga yu ñu dee gën a séentu ba pare ku am feebari xel màndarga yu ñu dee gën a wone ah, yu ñu dee njëkkaa wone mhm. dañoo waxtaane comme borom daal dafa nekk nit ku nga xam ne lu mu daan def mhm. di nga gis mu jékki-jékki rek yi da mu bàyyi ko ba mu wone yeneen saa yi nga xam ne méngoowut ak lu mu daan def bu mu nekkoon ak sagoom di nga gis nit ku nga xam ne dina bari euh, di defal boppam lu bari mhm. mu dem te point bu nga xam ne dina toog téye boppam du nangoo wax du nangoo génn si nit ñi ba pare foo ko gis rek moom kenn mooy toog ba pare toog siga oo toog di xuli rek di xelaat so suñ gisee science yi noonu boobu bokk na si bu nga xam ne euh, war nañ ko bàyyi xel trop mm. yeneen sign yi euh, ñu bari di nga gis ne ñoom duñ soob any sign dañoo jékki-jékki rek benn bés ñu off because am na luñ jël am na lu tax lu mel si suñ biir waxtaan bi nañ ñëw si loolu bon most of the time daal seen force ñu ñu dee soo mooy borom lu mu daan def dina ko bàyyi o mu jékki-jékki di dugga lu nga xam ne si nit ñi ni ñi ko xam xam nañ ne bu mu nekkoon sagom du doon jege loolu sax dinañ commencé laaj ana lan moo ko jot lan lan war a euh, def ak moom mm. fekka ne moom already mu ngi euh, bàyyi yoon bi soo façon yooyu ñu bàyyi ko xel torop si suñ biir waxtaan bi dinañ gën a wax yeneen saan yi ak naka lañ koo ràññee si ñoom ak naka lañ leen war a dimbalee mm-hmm. pour pour ñambaas ci tuuti rek anti aida feebari xel dafa doon loo xam ne dafa yaatu mm-hmm. am na ñoo xam ne nu leen di ñëwalee mooy dafa niroo dafa am lu leen di feeñu ñu toog rek ñu ne la tey daal dafa am lu may gis te si néeg bi fii dara nekku fi ñuy gis loo xam ne yow doo ko mun a gis wala ñuy dégg loo xam ne yow doo ko mun a dégg mm-hmm. ñeneen tamit lu mu leen di ñëwalee moom toog di wax mel ni ñu waxaat waaw ñuy waxtu di ree ñoom seen bopp yenn saa mm-hmm. daf leen di ñëwal mm-hmm. feebari xel dafa yaatu am na ñoo xam ne su leen ñëwalee dinañ sànni seen takkuwaay di saaga seen ñoo xam ne ñoom lañ bëggoon di bàyyi loo xam ne moom lañ daan def comme bugga naa di liggéey ci télévision bi lu ma bugga la mhm. waaye su ma dalee rek liggéey bu ma buggoon dama koy bàyyi doomi aadama ñu ma buggoon dama leen di jox gannaaw mhm. damay bari ay ci kër gi mhm. dinaa def loo xam ne day sonnal askan bi ci kër gi waaye am na loo xam ne war nañ ko wecci mooy dañ foog ne ku am feebar xel rek yow da ngay gaaw xool da ngay mer di dóore in fact jàngay wone na ne ñoo xam ne amuñ feebari xel ñoo xam ne gëm nañ ñoom amuñ ko ñoo a bari ay ñoo fi a